man Ahmadou Baas maa ngi jaal askan wi Seydi Lamine ñas ñaan yàlla yërëm ko te jéggal ko la may wax tàddu googu ma seen daa mel ni Seydi Lamine mooy ñibbi lew na ña seen la may wax tàddu googu ma seen daa mel ni Seydi Lamine moy ñibbi lew na seen ay Seydi fii réew mi toll ak fitna soo waxatul ndaw njombe teewoon nga toog waa réew mi yow la ñu miin ku deeti jottuli kaddu niiw ji doole yi tey tey gar gudul xaddi ngir congum état ak i noon ku deeti feeñal ya laqoo laqu ñëpp di xam fi réew mi toll ak di xeexal xaq yey nara neen ku deeti wax sun état yi dëgg sun defatee lu jaaduwul ak di leeral luñ fi jalgate woon kuy dëgg daanu na jàmbaar dem na maa la ko wax gaynde ñaloor dem na dootuñ fàtte sii di la bu réew mi tollaa ci ay vote ñépp bàyyi la xel ren ji élection yu géey xam ne lañ te dël nelaw xeex bi day wéy yee nga xel yi bu wér te formé ngay ndaw yu xam fit ñépp gëm sa gisiin njëmbët li meññ na tey jii sii di yaa xus bi foo seeru tey am nañ fa sii di اللهم صل على رسول الله عليه وصحبه أجمعين ترك الورد ما سبع من الحلال من أسباب المصيبات